yaakaar naa ne Diourbel waaye yëpp xam nañ ko xam nañ ne bi ma génnee ma rompre sama compagnonnage ak Macky léegi maa ngi euh, doon def ay tractations en tout cas candidat yu bëri seet si woon nañ ma waaye ki nga xam ne daal moom moo doyoon sama xel ci programme ci gis-gis ci engagement ak ci bañ a nekk ñaar yi nga xam ne pour man Sénégal bëgg ko benn bi mooy candidat de la continuité ñun man dama ne woon fii actuellement Sénégal toll ci jafe-jafe ci euh, manque d'emploi ci jeunes yi ci coono yi femmes yi nekkee ci coono yi population yi nekkee en général parler de continuité je pense que du loo xamante ne nii lu lu lu lu jaadu la même si comme ni ma koy waxee président sortant bi def na ay jéego yu am solo ci développement ñu koy saluer waaye fi mu nekk jàpp nañ ne candidat bi war a ñëw dafa war a nekk un candidat social un candidat bu nga xam ne dafa war a jublu euh, magistère bi yépp ci jublu ci problème sociaux yi fexe ba jafe-jafe askan yi ñu wàññi moo tax li ma waxtaanee ak Anta ma gis ne loolu yépp daje na moom mu nekk aussi une capitaine d'industrie man ñëpp xam ne entrepreneur la aussi donc ñu bokk ay gis-gis yu bari moo tax ñu ànd yàlla def na également man la jiital ci département bi mais plénipotentiaire bi donc di gérer boobu ba léegi ñu commencé léegi et c'est dommage que ñu reporté élection permettre leen ma rek ma ñuy tuddal waay yëpp ñuy wàcceelu kañ yi surtout ñu ñi nga xamante ne ni ñoo nekk arc ñi nga xam ne ñoom laa jiite ci département bi di leen masawu coono bu baax baax a baax a baax ndax ko xam nañ ni pré campagne mooy préparation campagne mu metti lool boobu ba léegi ñu nekk ci ñu xamoon ne également ñuy préparer suñu meeting d'ouverture à Mbacké en tout de la région fii lañ ko waroon defee le meeting donc ñu nekkoon ci liggéey boobu boobu ba léegi donc ñëpp sonn ci mu xëy tey jot nouvelle bi donc dafa yoon. masawu coono ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñoo àndaloon ci liggéey waaw pour ñëw ci sa question bi je pense que ñëpp am tey mbetteel waaw képp kuy politique rek wala ngay homme politique mais également képp kuy Sénégal am nga tey mbetteel ci élection yi ñu reporté ko parce que euh, fi ñu ko reporté la bu ñu reporté woon élection yi il y a six mois trois mois avant xëy na du am ci impact moom tey ndax acteurs politiques yi ñu doon préparer ay mobilisation ni mu mettee euh, préparer stratégie de de campagne préparer say comités électoraux préparer say mandataires ak say représentants de bureau de ba ñu ne ñu ngi war a dugg ci campagne bi suba ñu xëy reporter élection yi képp ku ko métti luwul yaakaar naa ne doo acteur politique wala bokk bëggoo Sénégal kon bokk naa tey comme ni ko tey yaakaar naa ne suñu candidat Anta Babacar Ngom ñëpp dégg nañ ko tey bokk na ci njëkk njëkk a génn ñaawlu report ndax kat lu bette la mais lu metti la aussi ci Sénégal bette na mais également euh, jàpp naa ne mënoon na ñàkk waaye boo delloo ginnaaw tuuti depuis le départ man alerté naa du benn du ñaar quand on a rejeté une candidature comme celle de Bougane, quand on a laissé passer certains, certains candidats, jàppoon naa ne am na lu nga xam ne biaisé na ci processus également dama gëm ne euh, format bi ñu defee bi ñu defee euh, processus bi baaxul comment tu peux à l'élection présidentielle nit ñi di leen di déposer ay chèques de caution man je peux écrire un chèque de caution de 30 millions déposé ko allez même si le chèque est rejeté conseil constitutionnel bu waree joxe kan bu waree joxe résultat yi la koy wax ñoo ñu dem nekk premier sur la liste ñu def tirage au sort aw benn nit par exemple ñu jiital ma ma war a ñëw samay samay nit ñu ma indi yëpp ci parrainage bi nekk ay doublons pour le suivant alors que peut ki nga xam ne dafa nekk à la cinquantième position wala à la soixantième position am na loo xamante ne ni liggéey na ko waroon na mun a jàll ñooñu yëpp jàppal ko candidat fantoche commune la donc jàpp naa ne euh, processus biaisé na depuis le début mais jàpp naa ne également fii ñu toll fii ñu toll reporter élection du woon du woon du woon la la bonne solution maintenant aussi il faut reconnaître que am na ay euh, lu ñu fi tudd lu doy doy waar yoo xamante ne ni man ëlëm na sama xet j'espère que ce n'est pas vrai maa ngi ñaan yàlla loolu ñuy wax ci suñuy juge constitutionnel ak yooyu yàlla bu nekk dëgg mais reporter les élections à ce stade naa ne du woon loo xamante ne nii euh, lu nit mën dégg la en tout cas ñun on on le condamne fermement le fait que ñu sonn ba léegi ñu xëy di reporter élection yi te Sénégal yëpp foog naa ko leen taxaw. xam nga pour le moment euh, waxtaanaguñ ci pour ñu joxe l'avis de notre coalition. mais man personnel personnellement jàpp naa bu ñu ko xasee ba wax euh, personne personne ne peut plus maîtriser le le calendrier parce que bu fekkee ne dañuy reprendre tout le processus yéen ñëpp gis ngeen depuis plusieurs mois on a on a fait au moins six mois le processus a commencé depuis donc cela veut dire que si on doit reprendre tout le processus et le président dans son discours a parlé de dialogue national

xam nga les pouvoirs du président parfois bu may wax toujours en Afrique il faudrait qu'on revoie les pouvoirs des, des, en Afrique mais loolu pouvoir am la moo maintenant euh, situation bi également dans son exposé des motifs bi mu wax dans son foofu rek la d'accord ci discours bi mooy exposé des motifs en disant que nit ñi euh, il y a une crise institutionnelle grave et ça Sénégal yëpp xam nañu bu ñu demee ba assemblée nationale di diir mbagg conseil constitutionnel bi nga xam ne mooy moo yore ndeyu charte réew mi réew mi mais c'est grave bu ñu demee ba ñu naan euh, le le le président euh, voilà n'est pas d'accord avec son premier ministre tout ça c'est c'est quelque chose quand même de très grave je pense que les institutions ont traversé une crise institutionnelle grave dans ce pays maintenant euh, est des élections chacun a son avis, mais nous, en tout cas, on pense que c'est très préjudiciable et c'est regrettable. Mais je pense que si Souba également, c'est mon candidat, sans le euh, euh, président comme nous l'avons dit, président ARC, mon Dieu que Nous avons condamné aussi. Je pense que la même question posée d'un propos, et lui me répondre, je pense que nous deux. Nous, ARC, pour nous savons que nous avons donc koo xam ne say milliards nga jël dépensé donc ñu remboursé ay quel que soit le niveau de dépense duñ ci mën a def je pense que loolu moo la ñuy xaar mais jàpp naa ne euh, am na ay préjudice yu grave yu ñu subir yu coalition yëpp subir peut-être am na ñoo xam ne demoon nañu ba imprimer seen i euh, je sais pas toute la logistique nécessaire pour toute la campagne ils ont peut-être distribué les les les les budgets de campagne et tout te yëpp yëpp xam ngeen ne yéen aussi budget de campagne bu xasee ba ngeen du dugaat donc effectivement y a un préjudice grave maintenant est-ce qu'il faut rembourser ça c'est peut-être euh, dont il parle peut-être que foofu a waxtaan jàpp naa ne effectivement candidat mënu loolu gañ élection man Souleymane Anda gëm naa loolu te c'est dommage que en tout cas fii à Diourbel élection yi amul ba ñu mun koo wone jàpp naa ne euh, candidat bi ñu tegoon mënu koo gagné pour plusieurs raisons la pour plusieurs raisons pense que loolu damay ne toujours du ma bëgg a wax ci coalition jàmbur yi du ma ingéré mais pour plusieurs raisons je pense que son candidat n'était pas le favori de de cette euh, présidentielle te moom xam na ko yaakaar et peut-être aussi bokk na effectivement ci li tax mu euh, décision bi jël ba xam nga ñun élection yi daf ñu en tout cas la coalition ARC dañoo dab mais La coalition ARC est une jeune coalition qui vient de naître il y a huit mois. Euh, tout cas bi ñu waxtaanee ci suñu biir gëm nañ ne ARC c'est maintenant une coalition avec laquelle il faudra compter à toutes les élections de ce pays. donc waxoon naa leen fi Diourbel Vision Nouvelle dafa taxaw pour participer à toutes les élections fi mu nekk Diourbel Vision Nouvelle dafa lënkaloo ak ARC fas yéene continuer liggéey. donc jàppaleen ne ak bés ni ki tey va élargir ses bases à Diourbel va élargir ses bases dans tout